Boña. waaw maaleykum salaam. Euh, tey nga am combat bu mag nga dundee say sama sinil bi. waaw amal dara maa ngi sant yàlla jur si yonent bi sant sumay ñaari waajur di nuy waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi di nuyu waa kër Cheikh yëpp ak képp koo xam sama supporter nga rek nga nekkoon sama ginnaaw yaa ngi dégg maa lay nuyu ba di la jaajëfal ak sama mbokk yi di ñuy yëpp di am di jàmm yëpp incha allah waaw ñëw naa làmb boole ma ak Lac de ma waajal ak samay mbokk waaw ñu xeex ñu bëre yaa ngi dégg tega nag xam ma man la dëgër moom may bëre moom ci làmb damaa nekk xale ñafa sama laay ba yegg si moom yaa ngi dégg sama morom yëpp ma daan leen ñoo bëreeg moom yaa ngi dégg man maa ngi sant yàlla maa ngi soog am machine làmb waaye la dëgër am na habitude di bëree xam bu bëree xam nga jëlu benn initiative man maa ngi xam commencement maa jël ay initiative xam xeex bëre jàpp xam nga faaq xam teex paat di xam jéem a bëre mais nangul bëre bu jàppee sama ngem da ngay gis ma arrière xam nga ne ma arrière fële léegi xam du ma indi people bu toll la na ci làmb nag xam nga ma ma ma tenté benn ñaar ba ñetti yoon xam nga bëriwul quoi may forcer combat bi loolu moo tax ma que moom bëriwul quoi. ci wàllu avertissement yi yow lan yi xam nga moom ba balaa ñu commencé moom dafa am ñaar ma am benn ñu dawal moom dem na ba am ñett ma am ñeent waaye ñu ngi taxaw yaa ngi moom dóorul loxoom rek lay def nii après arbitre bi arrêté combat bi daal may avertir te xam nga avertir kay da ngay génn xam nga war nga daw war nga def dara man maa ngi taxaw maa ngi jàkkaaroo moom mais xam nga ñun moom xam nga dañu am yar ak teggin ci ñëpp xam nga arbitre yi ñoo yor xam nga ñoo làmb mais xam nga la dégg dañoo bëre maam moom am fu ma ko fàqee teq ko. Ah, mu def bëggoon nañ nga leeral karapi yaa ngi dégg xam naa nag xam nga CNG ñu ngi fi xam nga dinañ dinañ xoolaat affaire yi yaa ngi sama loxo mi ngi ci ngemmam bëre bi commencé ba mu muy jeex mais bu ma ko ko fàq ko moom dafa def karapi loolu après làmb nañ ko wane bu ñu ko gisee xam nga CNG sama liggéey ak sama staff ñu ngi ci amul benn problème mais daal lu ñu ci wax mooy ay xale lañu ne ci làmb góor góorlu xam nga jox yar ak teggin ñëpp nag waaw xam nga làmb moo ñu booleeg moom ñu bëre ñëw xeex xam nga ku ma ab def na far ma dox ci koom bëgg ñu bëre xeex jóge fi mais moom bëggul loolu. tey bi nga génnee ci combat bi sa digganteeg Balla ba Balla Gaye bi nga xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy waxtaanee lan ngañ ci mën a wax. man initiative bi ma waxoon euh, kaddu gi ma waxoon du ma ci jugaat nee naa man ñëw ma fi di dëkk kii wala kii xale laa ne ci làmb. yàlla boole maa ñoom may bëre ñoom géej waaye feneen a ci am ku ma laam boole dinaa bëre yow incha allahu rabbi te damaa ñëw indi mbooloo Pikine yëpp topp suma ginaaw yaa ngi dégg ma bëre waa ji première ñu jàppante ma fàq xam nga bëre deuxième action ñu jàppante ma fàq te yooyu yëpp xoolee maa koy maa koy jëli yaa ngi dégg moom am na moom am na habitude di bëre nii nekkul man rek la machine nii la waaw mais man nag du moo xam du ma forcer combat bi quoi. stade bi nekk biir Pikine nga njëkk fee bëre nan nga gisee stade bi. waaw neex na rafet na xam nga gaa yëpp kontaan nañu lu gën a neex mooy ñu duy ko ba mu fees dell Pikine yëpp génn ak suma fans yu jóge fu ne waa Gambie xam nga waa Thiès Tivaouane ñoo jool joof yoor ku jaa jën xam nga sama fans fu mu nekk rek def nañ mobilisation ñëw waa jam ñaajo duy estade bi ba mu fees dell moo waaw waa Diourbel xam nga ñëpp rek duy estade bi ba mu fees dell moo tax bu ma ñëwee def action defaat action defaat action waa ji nanguwul bëre damay teg sama bopp teg combat bi ci yoon parce que après ñu bari ñu ngi ñu ngi ciy mer sax ba ma paree sax ñu ngi ciy mer dama tax ngay forcer combat bi moom bëriwul du taxaw bëri mais boo gisee ma koy def rek mais dama bëgg xam ndam parce que loolu laa xam moo commencé ba léegi waaw. Ah, non violence bi nga xam ne gis nañ ko fii yow nga nekk ambassadeur bi waa Pikine tey nan nga gisee loolu. waaw loolu moom ci lañ mës a dox fan sa kër booy ñaa xam foo na mës a xam rek da ngeen xam ci non violence. kafre xam nga bokku ndey bokku baay parce que seen mbër mooy ambassadeur pour la non violence moo tax tey jàmm lañ indi jàmm lañ indi xam nga def flag fayda xam ak jom comme li ma ko waxoon rek nee naa leen bu ñu defee yëpp ambiance lépp bu jour ba dinaa def flag fayda ak jom te loolu laa wane waaw. waaw sant gërëm nii la jàppale ci combat yi. waaw maa ngi ñëpp di gërëm ñëpp mu ñu limee daal du ñu du ñu matal ñu ngi sant ñëpp képp koo xam ne déplacé nga ñëw stade supporter boo Niang boo Niang mi ngi lay sant bu baax a baax même boo ñëwul nga toog sa kër di supporter Boy Niang Boy Niang mi ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax ñun nag tàmmuñu di wax lu déranger li ñuy wax yëpp dañ koy teg ci yar ak teggin ci yoon daal yaa ngi dégg rek de la yaa ngi dégg suñu mag la ci làmb ñu fekk ci làmb ñu bëre mu demee nii ñu koy sant yàlla bu baax yaa ngi dégg ko ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm làmb moo nu boole xam du ay ennemi yaa ngi dégg ah mais daal incha allah ñun ak suñu staff dañ bàyyi xel xool li nga xamante ni moom lañ gis muy quatre appuis yu mu def dañ ci bàyyi xel xool ba xam lu ñu làmb may rek ñu jël incha allahu rabbi jaajëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf